alhamdulilah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu feetu ba bàyyi di dund lu sama rakk génnoon àddina mañ ma ànd ak sëñ Omar Gueye ak Baye Wade ñu dem bàyyi nettali ma alaaji Malick ba mu daara ji ñu ko sa baay génn na jàngul leetar ba ba maalaaji jaar fa ca daara ja fekk ko fa te boo fekk na maalaaji xamante maam Ousmane mi jun maalaaji Malick mu wax ko leetar yi mu te jàngut ko mu ne ko ah, leetar dinaa dindi kumpa di mu jàngaay leetar waaye benn ba mu ko jàngee rek ñu tàgge ko baayam mun a tekk ab diit waaye xel mi mu jàngaat ñu ne ko sa yaayam génn na àddina altina la baayam Ousmane génn àddina talaata la yaayam génn àddina moom ba ma alaaji Malick donc ñu dàqante alaaji ne ko waaw ah, ma seet mu jox mu ne ko waaw lii moom fi mu ne ma ma dem ci sëriñ bi waxtaan cee moom boobu ma alaaji ànd ak ma alaaji Malick ñu dem ci sëriñ bi muy ñaareelu xalifaab Mouhamad Hafiz ma ba waxoon ci Seexu Tijaan indi wirdaaw Tijaan Mauritanie ba mu génnee àddina xalifaam lam moo tolloon ak siri boobu moo doon jàngale ci daara jooju la ma alaaji Maalik nekkoon ma alaaji expliqué ko ko mu ne ko ah, ba nag moom nawloo naa ko léegi dina danaa moom ñuy reer mu ñëw ne leen dal di ne moom sëriñ bi ne leen Malick tere naa ko dem tool lu mooy ma xebal ko yeneen liggéey yi tere naa ko ku ci wax mu liggéeyal léegi baxee leen ma ko muy suma liggéey yu sew yi ci kër gi ma di ko ko sant ne ko dimbale naa la ci biir taalibe léegi nag maa yow la point yu baax yum xam ne nit mën na koy xamee jëriñu ci jëriñ ci nit mu waajal ko ko nag na ko maa laaje dinaa ko toppatoo weer wi bis bii ci bu déwénee danaa ko xeewi bu demee bu di surga yi dana do bu baax ama baa nettali loolu ne ba ma ko sama baay di wax kat nan ma jamono dana ko laaj dal di ah wax ma moom wax ma ma wax kay jaale du wéy jale jaale du wéy woon jaale du wéy jaale jéeguma habdu moo xam li ma ne calaa dëggoon nag toogaat mere na ab di ñaari at door fay jógee demaat yooyu nag lima ma ci toggoo woon ñaan yàlla ci sama baay ak sama yaay xaqi waajur bu mu leen ma jot ci ñoom te lu ma leen waroon a liggéey yàlla xuutuma ci loolu moom maa ca deewa li ngeen di wax maa ca mbëkkante li ma mbëkkante ba xam ci li ma ci xam yàlla texe ma la ma texe ci loolu lay ne ba léegi ku ma ko ku ma ko laaj nag te dugun maa la ko wax moom danaa la diggal diggante daa ko diggaale yow ci loxol Seexu Tijaan waaye booba laa commencé nag suma kurus gi bon ñu ngi jaale Abdou képp ku ko xaajo jaale di la wax ne nii la baayam sonn na ci xam doom ju baax xam na doom ju baax liggéey na ñii doon seet leen nam doon def ku bëgg xañ ba la bàyyi noonu ku gis xañ bi bëgg mba bëggono na doom mako bëdé gor gor lu len ba xam lu seen dom di déparé ci yeen ah maa laaji ba mu waxee bàyyi la ko waxon kat ñu ñaan ci 14 18 huit ko tegee loxol mak ha ah, ku dëjeeg bay da nga xamné gune gu mak yar la dé bon tàmbali ci tàmbaleekaay ba Abdou dem na yal nañu yàlla huuti ci moom moom itam yal ko yàlla huuti ci ñun waaw bu nag ñi ci gannaaw ñëpp su fekkee aw foo bil inal xaxada kaana mas oolan xam nañ ko la moom nag nañ ko defal fi daaw fi yi moom gis naa ko ci baay mu wax ko ñu xam ñu ko jëfee gis ko mooy fukki junne ñaar ci sala ci bismillahi rahmaani rahim ni defal ko ku génne àddina mu gis kam kam ko defal mu wan ko la ko yàlla jox loolu moom xam na fukki junne ñaar ci xul wala waadun wala fukki junne ci xul wala waadun Baay wax na ko ci firim alquran ku ko defoon pour boppam xam kum xaritoot ku ko gis yaayam defa bu mu xamoon ci séyam bi ba ñu naan ñu naan daañ koy yóbbu xaajana ñu ne déedéet safara lañ koy yóbbu muy jooy loolu ki jàngoon fukki junne lexlaat pour boppam wax ci xolam ne xëy na naa yaay kii fukki junne bi ma jàngoon ci lexlaat ci saasiété mu gis mu ree mu ne jot nañ ko dugg na xaajana loolu bàyyi wax na ko jina benn xawsa mala aminu lañ ko tudde woon léegi ñoo tolloo xoon ak turam ko fi mu ne ci na kuñ koy laaj bëriwut waaye daf doon nit ko am yaram gune yi daan ko wax xate mbaq waaye amin moomu waa gaana la xoon ba bàyyi demee gaana mu bokk ci gune yi tuub te bàyyi ji xamoon doole lool bàyyi takku ko ne ko dana ko rey nijaayam na ko loolu bàyyil gune gu xam bàyyi xam nijaay mhm. moom loolu moom maa yow la ak moom tibb ci xalal ji mhm. lu xam solo jox ko ko acca génnal mhm. lii boo cee paas balaa jeex da nga xàgg senegal Sénégal moom boo ne Ibrahima Niass Sénégal moom danañ la ko danañ la wan fan la ba fi nee diitam lam fa ne ma waxoon li ma waxoon sànq xati fukk ak ñetti maa ngi fii bàyyi demul màkka moom moo ko waxoon moo ku ñuy wax Esa Esa Lokaja waa sarale yoon la woon waaye ñoo bokkoon na ci jumaa ji ne guddi mu yooxu na bàyyam génn na àddina ñu ngi ko ñu ngi koy xëccoo ñu ne dana dem safara lañ koy yóbbu ndax fa weddi borom jamono ñu ne ne déedéet àjjana lañ koy yóbbu ndax mu ngi ci kët borom jamono mu ne ko acce nañ def fi daaw yooyu bàyyi waxoon basmala xol lexlaas ah ñu ne ci man bi ma tolloo ci fanweer ak ñett ci téeméer bu mujj bi mu nelaw mu dee leen na ndax sànni nañ ko mu nga mana mané ne bàyyi de bu ma ko gisee moom lu dul jumaa ji danaa afale waaye mu tak sama fi rek muy julli ci fajar ñew fajar ci jumaa rek ma dag dogal ko nayu ko mu fay ma wako li bi wax naka nak mu sumu témer bi ma Mm, fanweer ak ñetti ci laa toll mm-hmm. mu ne wi ne kuñ jot fi kuñ bugal fii la mm-hmm. kon loolu dañ ko ci wax ci fi daaw mm-hmm. ku ko def biddaa yaa yaa ne ci biddaa waaye lii gis naa ko ci gis naa ko ci naar defal baayam fi yu bëri bis mu gis baayam toog ak yónnent mu ñëw rek jox loxo yaa Rasulullaah ah Cheikh Ibrahima mi ñu boolee toon lépp loo ko digaloon mu digal ñu ko gis nañ ko sama baay a ngi ne defal naa ko fi daaw jis gis ndab yu ko mu ne ko lii nag mu ko luñ la la defal la de Cheikh Tidiane daal ne ñoxeet ñëw ci kanam naa yónnante na ko maam ñii nii bëgg giñ bëgg Cheikh Ibrahima rëy de yónnante na ko saale ko fadullah yuuti man yasaaw ban ñi ko defan booba fi daaw loolu ah yàgg nañ ci téere de te mënul loolu de mm-hmm. waaye bi mu yàggee ci kurus gis na lum du fàtte de mm-hmm. gis na lu lum du weddi mm-hmm. gis na boo gisul lam gis yaa def yaa melu na mel yéen ñi di dem leen ci téere duuru samin téere la saraaw mursid wax na yi nit ñi ñaane mu nangu ak yi nit ñi di ñaané duñ ci nangu mhm. ku ci bëgg xam lu leer dem ca lekk lu leew dana tax nangu ñaan mhm. xam katan ham wér mhm. dana tax nangu ñaan ndax dang ko top lu yàgg ñaan lu bëri dana tax ham xam lu bëri ku xam lu bëri nak da nga bahé lu bëri bahé lu bëri moo tax sariatu maandu wu ci wu ci bàyyi na ne fondement bi ku ci bëgg a teg birig mm. ko laaj gan kees la koy la koy birigee mm. waaw boobu maa ngi koy wax mm-hmm. waaw def ne teg naa ko ci loxol képp ku bëgg a doo taalibe moom mm-hmm. bu sal taalibe yàquwut mm-hmm. ko xàgg ci nag ma mën a ñëw sambal ka moo bi birigee birig boo ca teg bàyyi na la nii la bisimilaay waaye ku ko wax laaj mu wax la hin nag ah ku xam ne ki la tegal ki tegal lii bonut ñaawut jikko nayut waaye dara ku ma ci mere nag ci loolu maa ngi sukkandiku ci yàlla mi ne isaa daxaanii fi ma waxee nga neexut rek waaye boo fi ne woon ma mere waaw mm-hmm. loolu lay wax mm-hmm. foog ñu toog te toog ci kuréel yi mm-hmm. kuy taalibe ku ne foog ñu jëriñu ku ci foog foog ci kuréel xam na ñu ma xam ñu xam ne seen way juri gërëmoon nañ seen yaay yi bañ duggee ci ak taalibe te ñoom duñu woon ak taalibe lañ xamee woon bañ ko xamee ne ca keneen ki do taalibe di dimbilanteeg mbokkam taalibeem gis bàyyi mbokkam taalibe mi muy dimbalanteen mu ne ko suma kuréel gi weddi wul li ngeen ne ma ko fekkee wut lu ma ci jàppee waaye ku ku ku jàpp ci suma kuréel gi te te bokk ci suma njaboot doo taxawu sa doomu bàyyi dépasse lii gis naa ku ko wax te duxu taalibe bàyyi ndax di tijaan rek wa qoola lahum qawlan layyinan la'allahum yatazakkaruun aw yaxsaa kan ñu ngi wax loolu ci ne ab doog daam ñoom ñëpp ku ci sa waajur fonk na kam xamante toon Baye Abdou fonkoon na Baye Khalifa Baye Saliou fonkoon na maam Saloum Diané fonkoon na kurusam gi de bon ku jooy xob du ku la njëkk a war a njëkk jooy waaye moom it bu koy jooyee ah waa bisimilah na wéeru ci barke baayam seet loolu moom danaa ko wax na baayam meloon nag maam Saloum bu génn ci àddina ku ko laaj loo bëgg a def bu la waxalee boo ko defee mm-hmm. moo balab rëbb bu ñoddi lam la lam rey gàddu na mel mm-hmm. Mm-hmm. mu jóg jamono no jooy na aw yoon ne maa yéex a sama baay moom daam kon maa ngi wax loolu ker buñ ko déggé ku ci ku ci sax nak yow yéen yi dugg len ci dara man ma maa ngi moom la. waye fokk dëggu ci dara. ñu dëggal la dara moy xam li jombu ci bayu rafal ndax maqamam ak dëggum la ilaha illallah la ilaha illallah Wafolwi TV am ngeen ngeen yéen ñi ànd ak baay bi ci barxama ñu ngi leen di gërëm ñu leen di ñaan